asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatuhu asalaamualeykum waa àddina maa ngi nuyu àddina bi yëpp ke nekk sa tur sa sant fépp waaye nekk rawatina doomu Tayba ñu ngi lay nuyu di la ziar jox sa wàccuwaay waaye eh, di leen ñaanal yàlla jàmm ju bare bare bari seen mbokk seen xarit seen soppe Maguette Camara madame kamara macha allah taala xaritu jeeg ji ñëwaat ak yéen seen émission bi nga xam ne yéen a koy xaar yéen a ko bëgg muy jotaayu jeeg ñu ciy waxtaanee lu am solo actualité muy góor ak jigéen ndax benn mënu cee dem bàyyi moroomam kon nan lañuy def mooy booloo ànd nan la ñuy àndee ñu nem ci wàllu sëy ndax ku xam sëy xam ne góor ak jigéen la waaye góor ak jigéen boobu bu ñuy sëy eh, lu ci yàqu jigéen lañ koy jiiñ lan moo ko waral kan moo war a baaxal kan moo war a defar muy jigéen moo jur njaboot balaa am njaboot sax day ñëkk a nekk yaayu boroom këram waaye tamit nekk magu boroom këram nekk rakku borom këram ba boroom këram fépp foo xam ne xool na ko rek dafay gis euh, soxnaam euh, bëtam du faay benn yoon fépp fu mu geestu rek daf koy gis kon loolu la jigéen war a njëkkee euh, buñ jëmee ci wàllu jonge nag jigéen ju baax dafa war a jonge joge nag du ci kaw lal comme ñu ko xamee fi mu ne jënd fer jënd sër jënd yi xew loolu yëpp ca la bokk waaye du foofu kese fexe am ak ñëpp jàmm mooy joŋe bi njëkk am ak jàmm mooy joŋe bi njëkk macha allah jubóog xarit yi jubóog jëkkër jubóog goro jubóog sax sawu jubóob def ko xarit loolu mooy joŋe bi nga xam ni moo njëkk kon jigéen ñi nañ delluwaat seen xel xam na say jaamu yàlla la te luñ ci yàlla dig dafa rëy kon nag bu ñu ko góor yàqal bu ñu ko jigéen yàqal euh, suñ delloo ci wàllu éducation dafa réer jamono ji te ñun yaay am nañu éducation dan mooy suñu problème bu mën ñëw éduquer suñu doom euh, jigéen bi gën a jonge mooy bi gën a mën a éduquer doomam kon jigéen ju baax dafay fexe di éduquer doomam ndax éduquer sa doom dara ëpp ko solo éducation de base dafa am solo jigéen dafa yar sax jëkkëram yar doomam macha allah ba yaraale mbedd mi kooku ban jigéen la ban genre jigéen la dinañ ci ñëw léegi incha allah ak suñu invité kon nag euh, euh, ñu dalal suñu invité jox ko kàddu gi xuus nañ sax waaye nag euh, moom mooñu ko gën a maîtriser incha allah asalaamaaleykum.